di wax na nag ki nga xam ne mooy ñëw mooy Cheikh Baye Ngom muy borom bés bi mooy dugg si waaye bu paree nag ñi nga xaar daa ay Faye kon nag na ñëpp toog na ñëpp teewlu kon Cheikh Baye Ngom lañuy ñu mu dugg si wasalaamaaleykum wa rahmatullah illa الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله bi di jaari karaama الله

sëriñ Seexu Kaamil la war Seexu Zamaani bi ñëw na bàyyi bara am na Seexu Zamaani bi ñëw na moo na Seydi Bara Xaliilillaahi dina mooy boy rosa leer yo bàyyi bara am na ibu ne rakol bu dul wàcce leer ya nañ ko soolaan ñun leen tigil di su wàllu mulku malakoot bàyyi bara am maay yoonu Banjul keroog ba ñu jàllee ca biir motoor ba Cheikhou Faye naan jug leen bara am maa yoonu Banjul keroog ba ñu jàllee ca biir motoor ba Cheikhou Faye naan jug leen sabal bara am xaq qadri wal miqdaar al-aziim bi temps bi moo xat Seyda Aïda Faye ci biir yeneen zikkarkat yaa ngi ci biir kon ñu bàyyi gars yi ñu doxal programme bi incha allah alhamdulilah yàlla bu baax di wax ne ku nekk ci yéen xam ngeen ne at yi passé yëpp fii nii ñu daan taxaw ñu ngi fi daan taxaw suñu xarit suñu soppee Eh, ndaw lu baax ku bëgg lu baax ku jaar ci yoonu mag ñi góorgóorlu ci jikko mag ñi muy cheikh maam alhaaji muntaxa ibnu maulana cheikh ibrahim ñas radiallahu anhu eh, ku nekk xam na ne bés ni ki suba incha allah moo nekk ziyaare waajuram cheikh mouhamadul muntaxa loolu mooy ngàntam ba mënta teew ak ñun fii te danañ ko ko nangul ndax at yu bari ku ne xam ne xataayam ak góorgóorloom waaye daan nañu cël temps bu bari nekk ak ñun fii waaye teewul waaye teewal na njabootam yépp soxnaam teew na sëñ Cheikh Dramé mi nga xam ne foo gis maam alhaaji Muntaxa yaa ngi koy gis mu ngi ànd ak moom di jëw yi ñam teew na ak délégation bu mag a mag a mag a mag Eh, waxoon nañu bind tur yi waaye ki bindoon tur yi moo ñëwul waaye suñ tuddee sëriñ Cheikh Dalaame rek tudd neen délégation bi yëpp kon moom alaaji Muntaxa nee na mi ngi nuyu ñëpp mi ngi ziyaar ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp mi ngi àndoog ñun ci bis bi ci mbootam comme ni mu daan àndee ñin ak ñun ci mbootam ak jëmmam kon ñu ngi koy nuyu di ko di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla gudd fan wu ànd ak wéew kon nag Seyda Aïda Faye ngi nii moom tudd yàllaam ci xol yëpp lay dem comme Seyda Aïda Faye bismillah bu ñëpp booloo ne jërëjëf marama dund gi dafay ne ba mel ni dootul jee bu ñëpp booloo woon ne jërëjëf marama dund gi dafay ne ba mel ni dootul jee ay bu ñëpp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

إله إلا الله لا لا لا لا لا لا Allah Cheikh Tidiane baax di julli ci sang-sang yi Moustapha ñu ngi salmalit ci moom waaye ñu ngi sant Cheikh Tidiane bahrul anwaari xatmul awliya góor googu nga xam ne moo waxoon ne ana rajulu ha min qaafin ila qaaf ñu ngi koy ndokkeel waaye ñu ngi njukkal daj dëpp gi lépp ñëpp fajkati aajo farkati bakkaar yi bàyyi daam aas waaw kan ziyatul kunoos Ibou Diouf ne ko salaamaaleykum gërëm nañ la bàyyi ndax yaa ñu tere de ci naasut ñu ngi wax mbooloo mi ku fi toog waxal jërëjëfe bàyyi ca kaw ñu waxaat jërëjëfe bàyyi ca kaw jërëjëfe bàyyi jërëjëfe Ñas jërëjëf baay Barama Ñas jërëjëf baay Barama Ñas jërëjëf baay Barama Ñas jërëjëf baay Barama Ñas jërëjëf baay Barama Ñas jërëjëf baay Barama Ñas jërëjëf baay Barama Ñas jërëjëf baay damay wax ne su tan gore woon bu ñuy gubali mbaam moo ci ëpp say taalibe Cheikh Ibrahima fu ñuy sante baay rek ñépp dañ koo war di ndokkeel ndax def ñoo fekkoon ñu nekk ay weñ yu ñuul kukk bàyyi jël ñu cuub ñu or bañ mun ñoo denc ci armoire ñamaas ñamaas rek ci ëttam Cheikh Ibrahim mu ne la cas yóbbu la xadratul quds rey la ci kenn ak yàlla ki dekkal la te dootoo dee ku am sëriñ bu la defee loolu fu ñu koy sante rek war nga koo sant bu xotteeku ma ne wax leen jërëjëfee bàyyi ca kaw li tax ñu taxaw fii leer na leen naññe mooy addiya bàyyi la ñuy laaj képp koo xam ne yaa ngi toog ci palaas bii te yëg nga ne am na lu la bàyyi defal maa ngi lay laaj addiya bàyyi kenn ku ci nekk nag na seet li ko bàyyi jaral rek mu def ko addiya yi na ñëw góor jigéen mag ak ndaw Baye Dramé ubbi na bunt bi moom joxe na ñaari junne mu laay dama bëgg nga jàppale ma ku fi toog nag fexeel ba sa dara dem ci àddiye ji wallahi yokkute rek ci zahir ak ci baatin na ñëpp ñëw góor jigéen mag ak ndaw na ñëpp ñëw ñu joxe àddiye Mawlana Cheikh Ibrahima waaw bismillah mu laay da ngay waaw ma jege noonu sax xam-xam danga ko am waaw lu waay bëgg rek na ko wax lu waay bëgg rek na ñëw am mu laay war nañu am fuñ def de mbaxana mi tuuti na de addiye yu bari laa bëgg mu am na ñëw addiye ji na bari na bari na bari na bari kenn ku ci nekk nag danga ci def sa dara waaw góor lii laa d'accord ñes ci bàyyi na ñëw waaw góor waaw góor waaw góor na ci ñépp def xëj na xëj na ñëpp duñ mun a egsi waaye mu am ñu jël mbaxana laaj foofu ci ginnaaw ndeysaan dëgg la waaw waaw góor may ma ma am lu ma ci dolli tuuti rek tant bi macha allah mbooloo mi bëri na mais dama soxla tey foofu laa koy jàpp soixante personnes dama koy compter nag par benn waa xaaral tuuti dama buggu kenn ku ci nekk ne ñokket fa nga toog ak benn billet junne su mu nee nekk dix mille na ko nekk su ko mënta nekk junne laa soxla soixante personnes laa ci bëgg yoo xam ne nii ku ci nekk danga may jox junne bi wax ma sa tur man maa ko bugg a dégg man nodd ko Cheikh Ibrahim man géwéli baay su ma waxee ak moom dana ma dégg ma ne ko diw joxe na junne li mu bëgg xam nga ko benn par benn dama koy compter mënuñ jël salle bi yëpp nag 60 rek kese laa ciy jël 60 yi bu matee foofu laa koy yemale génn par benn jebel jebel de jebel xaaral li jebel joxe teg ko suma loxo bi ok lépp suma loxo bi jebel un kii ki joxe beneen bi kan la Medina bàyyi ca kaw Mohamed Sall am téel ma waaw Mohamed Sall joxe na junne ci Baye oo jox ma sa tur maa ko bëgg a dégg de wóor na li tax ñu wax loolu nañ jëmmal loolu rek joxel sa tur xam nañ ne dangaa def te yàlla rek tax mais dafa am ay code ci biir jox ma sa tur Badou Kandji ak Issa Gaye ku ne joxe na junne El Hadji ñaan doomu Medina ba joxe na junne maam Jaba Siise jox na ma junne ci baay xalifa jox na ma junne ci baay naka ndaw Abdou Ndaw jaamu Cerno Alassane Dem Dem Jóob tukulóoru Baay Cerno waa Baay as jaamu Cerno mu ne nga jox ko junne tur wi laa bëgg a dégg Aliou ah, ah Aliou suma njaati gi Fass Cheikh Tidiane jox ko junne jox nga ko su ngeen xamoon junne yi ñuy laaj li ci xew subhanallah ku jox junne bi tur wi naka la Medina allahu akbar yow tur wi naka la sayda nafi bi tey jox na ma junna ci baay konteel rek bu 60 yi matee rek nga arrêté dégg nga njaga soldaaru bàyyi jox na ma junne li la nit ñi rawee biñ koy def yaa ngi ne xajj di leen xool toogal ci sa junne bi ba xool rama bi tey jox na ma junne ndeysaan allahu akbar tur naka la ah tur wa gudd na <laughs> waaw waaw dëgg la yow pëlu baay indi indi rek indi rek pëlu baay yow da xiif lacciri lay ut kii mbokkam Seydi Alil Harazim la hajawa Aliou Seck jox na ma junna ci baay allahu akbar tur wi naka la Aminata Sarr konteel rek sëñ bi buy mat rek nga wax ma ñu yemale ko foofu tur wi Saliou Ndour man maa ngi joxe maa ngi laaj gisaguma bàyyi am suma xarit bi taxawoon na fi def li muy def waaye man bu may laaj dañ ma war a jox de hmm. naka Baye Daba Baye Demba si bu Mbuur suma xarit soppeb Cerno Alassane Dem moom ñaari junne la joxe Allahu akbar jox ma tur wi astu fay ho ho fay nga sant wala mbay hmm, waaw ok mbay moom baax na bu doon fay moom ma xam ne ceeb ngay lijjanti rek aca tey daal gay jox na ma junne say daal gay jox na ma junne ci baay na ñëw bàyyi mu bàyyi duudu bi tey hmm, borom dundoo ji suba la gàmmoom gi de waaw duudu mu màlle ngeesam duudu mu màlle allahu akbar sayda umu kalsoom sayda umu kalsoom jox na ma junne ci baay ndeysaan allahu akbar mamadou jawara waxal li nga bugg rek ci sa xol yàlla def ko ci kattanal borom bi fii fii kenn du fi fenee fii lu ñu fi wax rek dëgg la joxel sa junne bi billahi wallahi taala juróomi junne ngay jox sëriñi njabarkat bi wala bindkat bi daf lay jox nga sangu ba nëpp te doo gis dara fii moo gën a gaaw jox Cheikh Ibrahim subhanallah balu teng si boo dóor ci tabax bi ci yow lay del si ñëw leen naka Xadaafi joxe na moom ñaari junne kontel da buy matra nga wam Baay Idrissa Touré bu njaafat muqaddamu Corno Alassane Dem jox na ma junne ci bay ajaban sayda Ayda Fay géwélu baay bi jox na ma junne ci baay ndeysaan yàlla na nga gudd fan Ayda Fay yal nga dund téeméeri at tur wi kura siise jox na ma junna ci baay waaw hee def ci def ci sa junna boobu indi ko barke Baay Ñas compte bank nga ko dugal mhm. jox ko junna num tudd Biram Njaay xaƴa o séeréer refo na fiyo xena jam a ah, yasam roog a jam waay tur wi xadi bàyyi yu laan fa jaban ndaamal bàyyi la ca ndukumaan jëmm jooju nga xam ne kenn dootu ko fàtte waa man moo ma tëbbaalab laaj addiya bàyyi sax nag bu ñu laajee force dañuy jox baay yu moo ñu roof xaal boobu waa jooju nga xam ne dundam gi yëpp da jeexal ci xidmal Cheikh Ibrahim te lii may waa Cheikh Mouhamad Daraame xam na ci dara Abdou Barham ah moo jël léppam jox Cheikh Ibrahim jox na ma junne baay day saan tur wi nag alaati ajaa naka waaw góor jox na ma junne ji baay eh jox leen ma ci junne yi na ñëw billaa wallaay sa tur naka la les les tiktokeurs de la fayda hajaban mention spéciale à vous ndeysaan baay Maodo Gueye menn mu ngisali sali <laughs> eh, mu ceerno laay wax sax ndeysaan jox ma tur wi Ousmane Niang jox na ma junne ci baay suy mat rek mu laay wax ma de bu mu ëpp bu ëpp soixante yi buy mat rek wax ma naka la astu caam xajaban yow suma sëriñ nga caam Babel waa caam moo ñeen fukkeel gaay bi faydu bi takkee trente neuf personnes lañ hey baay amul sikk ne moo doon yonent bi trente neuf personnes ñoo gëm Muhammadu rasulillah Omar bun Xataab ñëw ñeen fukkeel leen keroog bi Maam Malle eggee ca egguwaay ba Cheikh Serigne Mbaye da koo dee ci loxo di ko yóbbu ca jalangoor ga jekk faas rafet kaala borom dënd bu yaatu bi mu toog ne xaj ay bëtam mu naan ko aka niroo Cheikh Serigne Mbaye wax naan aka niroo aka niroo bàyyi ne ko Serigne mbay lay wax mu ne ko yonantu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa oote diine ca Makka am fanweer ak juróom-ñeent Omar bun Xattaab ñeen fukkal leen mu ne Omar Màlle Caam tey moo ñeen fukkel ñu dugg ci faydu bi Caam dem bay tey noo sëriñ lañ am du fëriñ te du këriñ kii lan la ma jox Baye Amadou Camara moo joxe cent cinquante mille moom moom bii def cee yàgg Baye Amadou Camara Baye Amadou man moo tax ma def la camarade ci bay moo taxi tamit macha allah. heure bu nekk ñu ngi téye kurus di la ñaanal yàlla ku amal njariñ pay bi la kuy dimbale pay bi la kuy jël alalam di ko def ci pay bi la wala kaana yu mel ni baaju sax day yëkkati teraangay jëmee ci ñoom at mu jot tabaski ba may yóbbu sookoon moo koy jënd ponkali xar la moo xam ne tukulóor mën na see yéeg te doo daanu dégg nga ko at mu jot mu di ko def ci wala kaana bi te noonu la koy defalee ñu bari Amadou kamara maa lay ñaanal yàlla na nga gudd fan yal na boo dee léegi yal na nga gudd fan yàlla dolli la wërsëg dolli la xam ak xam sa këllë rek jëng saala yal na bum dog ba pencam yàlla Seyda Mata Baye moom tamit joxe na macha allah léegi ah lii calculer ko ñaata personne la war a doon su matee 60 rek ñu arrêté calculer na ñëw fa gaayu haali barhaama bokku leen ak barhaama bokku laa gaayu may na suñ jugoo der bi ñul moo sànq gaayu barhaama nekk ab sénégalais waaye juddoo Sénégal gii soo xamul saaf bu rëy ngay ñibbi Seydi Barhama dëkk fii ci biir Saalum waaye juddoo ca biir Saalum bi ndax dimbale la yàlla rek kay tax nga gëm ko Barhama suuf si tey ma lay ndokkeel man ca gan gu foor nga am gan gu foor ba mel ni nga ba gaare Barhama lii mu ñuul nga ñuul bu mu tax yow dafa ne yàmbaay la waaye sa bay duhut baytal na kaade barhama diina noon yo ɓon towre baaya kawo ñaw wallu ko nooni diina kammin ne kamugaade barhama nooni diina bon fiwa han baaya ɗan ñewɗo tontu tooni diina barbar ko muɗo siidi barhama barbaram ko kettuko tok ndawru guddu boni yo ɓori diiri fi bay taif belna arme barhama baay taalif doy na arma barahaama romb doy ñu def takoral yow nga foog ne mooy ci ko bay daa fi ñàkk xam la waa ci fi bay tool yi moo de barahaama waa nga dem te tool yëngalam ak xoral manul ci dara koo gërëm ki koy jindi ko moo di sëy bi barahaama ak xoral ci tool bi xamal ni ci tool ba leen dëkkale baa yaxaade ak ñi ci des kenn lu ni barahaama kon de baa ngi jot Sénégal yéen ni fàttu sel mu di leen la raxas bët tey moo di Seydi Barhama marchandise mi ñuy yéene ci teleeg rajo dama na bu teleeg rajo paanee dootu jar ca Barhama marchandise Baay Ñas bi yàlla moo ko yéene ca kaw taxri fóonee xam yàllaay boo xamut waxal xamuloo mandu leen ca baraxaama doom di kay ne fàtte bayam bay nga dee mu koy cokkaas maa ngi gën nga doon taxawal gaynde gaade marxaama boo gisul balaa bu ci teg sa loxo ci nit wala ka laalataake daal ku ko laal xam ne laal nga marxaama oto yaa nga naa romb kat mu jóg de boobu oto ba wax bi ñaaw fële baay tuubi leen ca barxaama lal sa maam ba maam bu ñu nëb waa ji nag di doon yos ci lal sa kekk booy meli tam de jaar la barxaama piis ya woon ca daaw ji ak piis yi ren yi duñ bokk sañ sa bee gënal xale yoo ko tijjee ca barxaama leeru janta yow bëgg ko bañ ko moo ci am dama yow li ngay ragal dana xam moo fay du nangu sa kër bu duhut yow say doom sën yi ñëw ca barxaama buñ na am nawet ñëw na baykat ak keneen ko bay taw bi foog mu ci sa kër moo di barxaama seen tabax yi nun mën a mel kër yi ay oto milliard bàyyi koy ca barxaama waaye buy saxaar wagoom kooka laay woy moo de Cerno Seydi Barham xawal nañuy xam ku ci xiif bi waaye Cerno Xasan motor ba koy lonk gaaw na moo de Barham ama samsun ga ca gàddaay ga la Cerno na nuy juddu xatam jant baa ñu juddu loolu waaye Barham jant boo feeñ la ci biir mu doon ñaari leer jant ak sëriñ xatoy Cerno Seydi Barham jaakaayoo Cerno da koo dajal romb leen ko jiitu leen ci Seydi Barham kër gi yii ji xam-xam yaa ngi cornom Seydi Barhama def ko ci nag képp ku mu jàngal loola dafay barke jëm ni barke yaa ngi cornom Seydi Barhama ala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

صائرا لأحمد خير العالمين وساكرا وإن إبراهيم قد جاء زائرا لأحمد خير العالمين وساكرا هو الحب إبراهيم قد جاء صائرا لأحمد خير العالمين وساكرا هو الحب إبراهيم شائرا سواه فإني جئت أحمد صائرا هو الحب إبراهيم قد جاء ظاهرا لأمر غير آدمين وساكرا ومن كان يدعو لي المدينة شائرا سواه فإني جئت أحمد صائرا وابن إبراهيم قد داخلا لأمر خير العالمين وذاكرا له المسجد الأعلى فطه قصيده وقد عروض الجنان يجاورا وابن إبراهيم قد داخلا

لمن وذاكرا وفي طيبة هذا كبر وقندقون ولا أهود تشي كبر وحاجرا وفي إبراهيم قد زائرا يا مرض الآدمين وذاكرا فبرحام يا بشار أرجوك من قبل هادرة فكن إذا بأن يوم زقد وأدخت وجوههم وأقباروا ترى كل حائرة ولد إبراهيم لقد جاء زائرا لأمر الخير آمين وذاكرا فبرأ ما يأتي زائرا متوسلا ومطفئا أرجوك قبرها ديار ومن إبراهيم وجاء إلى ديار آمين وذاكرا وكل ذابع يوم السقر وأبرت وجوههم وأبصارهم ترى كل حائرا وقد صبا ولدان وقد صاب أمن وقد بلغت كل القلوب الحناجر What? بدن وآخرة فمقتضني حقا عطاء محمد وعلى الحق يتعداني زمان مكبرا قد جاء زائرا يا من خيرا ولا مالك إلا إله شافعا سوى المصطفى المختار وآخرا

جميلا وذاكرا لنفسي وابائي ونطلي ورغبتي طبعته هباء ابدى صرائرا وابو البراهين قد جاء ظاهرا يا قلق الآلمين وذاكرا رضا لا يعطيك واصلي ومرشدي وقد عاد ياتينا الى الدين ناذرا

الذين وذاكر عليك صلاة الله ثم السلام أتيتك بركتم مبارا وطائرا ولم إبراهيم قد جاءت يا من خير العالمين وذاكرا بنفسي واولادي وصحبي واسرتي فاوتهم لنا اخوانا بنا وظاهرا يغيب ابراهيم وقد جاء ظاهرا يا من خير العالمين وذاكرا عليك صلاه الله ثم سلامه وأقوالي وأصواتي يراك في المعالي يا مرقيتا لمين وذاكرا عليك صلاة الله ثم السلام وآل وأصواجين ومن كان عظما إبراهيم قد جاء الدائرة Allah ci notre chaîne Daara Petite Family abonné ci notre chaîne Daara kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay digil kese loo doom si